duñ ko duñ ko téye mënuñu ko téye. finalement seen premier ministre dina def DPG bi. DPG bi. Hmm. moom logique bi mu jël dafa leer. Euh, DPG dafa am lu ko encadré mooy règlement intérieur. Hmm. ca biir règlement intérieur bi DPG nekku fa. dañ ko fàtte dugal laat. waaw lekkoon nañu dugal DPG. nañu gis ne règlement intérieur bi reconnaître na ne am na premier ministre léegi parce que ba léegi amul. ci assemblée nga doog a woo premier ministre mu ñëw. moom loolu rek vous campez sur votre première position. bu ñu conformé wul euh, règlement intérieur bi doo leen dem DPG. man lu lu premier ministre wax rek loolu laa wax te sëgalaat yi. baax na c'est bon d'en savoir en tout cas Nafi Diallo euh, def na une proposition de loi pour conformer la, la le règlement intérieur. dafa mel ni procédure bi dafa xaw mbir bi dafa yéex processus bi dafa yeex ah, man de wax dëgg yàlla xam naa ne daal euh, li président li premier ministre Ousmane Sonko wax dafa yomb defar leen ko est xam nga ne may mun Maïmouna man dama war a Amadou Ba di def DPG tamit alerté wu leen woon Amadou Ba def na DPG ngeen def initiative motion de censure waaw xam nga xam nga en fait boobu euh, tey man mën naa ñàkk a gis benn mbir ñu dem ba jamono ma gis ko parce que man loolu laa jàpp parce ñun ñu di wax ak yow man dama waroon a voyager dem ci forum bu euh, Yaoundé sur l'économie sociale et solidaire ba ma demandé autorisation premier ministre daf ma ne yéen du ngeen dem parce que dañuy préparer. Euh, DPG dañuy waaw dañu dañoo war a dem defi DPG. parce que envoyé non jàppatuma ko nag wax dëgg nañ ba ba def lépp lépp premier ministre mu ne parce que dañoo war a dem defi discours de politique générale lii moo tax demuma Cameroun. on a travaillé intensément ci loolu man ak samay service dans les autres ministères c'est pareil donc par la suite moom xëy na gis doon lool la daloon ñële ci bu njëkk xëy na moo ko daloon ba moment ba xëy na kenn alerté na ko nekk ah mais est xam ngeen ne parce que mel noonu parfois mu ñu gis ko au dernier moment nga gis ne pourtant mais ce n'est pas une manœuvre politique pour se euh, pour se dérober ce n'est pas du tout ça ah, d'accord man loolu laa gëm d'accord ce n'est pas du tout ça te dama gëm ne loolu la xam nga gëm dafa gën a